mañu saaw ku ko soob fa yax duluhoo tem koy wàcc bi àddul yi ca maandoom nga ba yax di te muy jubal mañu saaw ku ko soob fa yu wax fiqoo tem koy tawfiixal bi fadl yi na yàlla lay jëfe ko soob mu tawfiixale leen ñu gindi aw ca yoon wa am ko soob mu wàcc daal di jàdd waaye loolu rek lay jëfe te tee nag jaam bi ci yi fakulun kenn ku ne wala nga ne fakulun kullun képp mu yaxsarun ko ñu jàpp dalal la wala ko yombalal la bi tey siir yi ci jàpp dalu yàlla ila ma jëm ci la nga xam ne sabaqa jiitu na min ilmihi ci xam-xamam ba wa qadar yi ak dogalam ba min shaq yi ci aji texee di aw saahib wala aji texe nee na jaam bu nekk la yàlla naroon ci moom naka jekk moo xam texe la moo xam texee la da ko yombalal yoon wax bu dee ki nag bu nar a texe ci a yàlla aw ci yoonu texe da ko yomb lool bu dee ki nar a texee itam ci coobare yàlla yoonu texee di aw ca da ko yomb lool rek na yàlla rëddoon dara lu ci rëcc taala jomb na ay yekkoona bu nekkee fii mul ci nguuram gi maa xam ne laa yuritu ko nam yuritu aw yekkoona walay nekk li ahadin ñal kenn maxi nan doylu xan wali si yàlla nee na nguuru yàlla gi dara mënu cee am te lu da koo soob lu ci am rek da koo sooboon kon nag bind woon bindeef mooy jëf-jëfi boppam yàlla doolu ci dara day mel ne kon nguuru yàlla gi am na lu ci am te yàlla defu ko loolu mënta am ba tey nag amul kenn mbaa lenn loo xam ne mën naa woon yàlla gannaaw dem ak boppam déedéet lépp lépp aajowoo yàlla képp képp aajowoo yàlla yàlla nag mooy ki nga xam ne aajowul kenn aajowul lenn aw yàkkoona walay am walay nekk moom walay am lañ joolu xaali bind li in ñeel dara illaa huwa dara moom yàlla ba tey jomb na am ku mën a sàkk dara ku may yàlla loo gis rek yàlla ko amal yàlla rek mën a sàkk ku bokk te yàlla mën laa sàkk te yàlla la sàkk rabbul ibadi moy borom jamnya, wa rabbu a'malihim tay borom seeni jëf wal muqaddiru tay aji dogal ja li harakatihim ñeel seeni yëngutu wa ajalihim ak seeni ab yana yalla mo mom jamni mo len sak sak seeni jëf kenn ku ci nek itam la ngay ak la ngay dal lepp ci mom la te kenn ku ne sakal na la apub de ak apub de ki dara lu ci top dara ci toxo الباحث الرسل موي اج يون يوننته اليهم جيم سي نيوم لاقامه الحجه غير تخاوا لايوا عليهم سي نيوم يالا داكو سوك مو يوني اي يوننتي داخ بو اولغي كين باغ ام لاينا خوبون يون وا داخ نين سو يوني ووتون داني مي واخ ني واو لوتي وون غا يوني باغ خام سو يون باو كو موي لولا ارسلت الينا رسولا كون نك بو يوني رك بو لاي فاقنا ثم ختم توك مو موتلي الرساله يوننتي wan nidaarata ak xuppe ga wan nubuwata ak solo ga bi muhammadin ci muhammad nabiyihi ka di yonanteem salla yàlla na dool tedd allahu yàlla alayhi ci moom wasallama dem dooli ko wóolu ba jaalahu te mu def ko axiral mursalina muy mujjub mu yónni bashiran bir mu ngi aji bégal ci ajana ka gëm tey topp wa nadiran tey xupp ci sawara kay weddee kay moy wa daawax yan woote ilallahi jëme ci yàlla bi isnihi ci digalul yàlla wa siraajan tey ab làmp mu niiram bi aji leeral wa anzalate mu wàcc xale yi ci moom kitaabahu téeréem ba alxakima bi aji bari xikam wa sharaxate mu ubbee ci moom diinahu diineem ja alqawima ji aji jub jubale bi ci moom assiraata yoon wa way aji jub dafa soog suñu borom mu doon yónni ay yonante ñuy tegaloo di tegaloo ba ci mujj jamono mu yónni kenn koo xam ne mooy mujj ci mboolem yonante yi gannaawam kenn du ci topp kooku nag mooy Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yàllaa ko yónni mu boole bégle ak xuppaate kuy gëm tey topp ñu bégal la ci ajana mu bégal la ci ajana kuy weddi baa ngay mooy mu xupp ci safaan ba muy sawara di woote jëme ci yàlla ci loo xam ne yàllaa ko ko digal di làmp bu leer buy leeral yoonu yàlla yàlla wàcce ci moom téere bii di alxuraan muy téere bu doy doy waar yàlla wanee ci moom diineem ja xam ne muy lislaam moom rek moom la jàppee muy diine te ku ci aw itam mu yoroo ne coow ba àgg ca yàlla wa anna saaxata war nañoo gëm ne nag bis penc aatiyatun ah, aji dikk la laaray ba amul benn sikki sàkk fii xaa ca moom wa anna naka yàlla yebaas dana dekkal man ka nga xam ne yemootu dana faatu bokk na ci pas-pasul islaam nga gëm ne dee ak dekki lu am am la bis penc yàllaa xam kañ lay doon waaye faaw dana ñëw képp koo xam ne deexoon nga itam daañu la dekkal fay la sa jëf kama bada ahum naka mu leen sose woon rek yamoo doona la ñuy dellu ndegam amuñu woon mu amal leen bi demee ba raaf ne mosuñu am itam bu leen soxlaa daal leen dettal taxawaat leen daal leen taxawal ci béréb fay leen lañ jëfoon wa na allaha war nañoo gëm ne naka yàlla subhanahu sorelal naa ko lépp li yellu ci moom baaxa fa ful na ful mooy yokkal di xibaadihi ñal ay jaamam almuminina ña gëm alxasanaat jëf yiw ya bokk na ci pas daan ko wax ba tay ak yonante bi ci hadith ku gëm yàlla bu defee lu baax yàlla da ko yokk yokk yokk da ci gën a néew mooy benn ñu yokk ba mu fukk man jaa bil hasanati lahu hashru amthaliha waaye mën naa dem ba juróom ñaar téeméer mën naa dem ba ay junni junni mën naa dem ba tuyaaba ja bari bari waay boo xam ne des ko mën a ko wàññi lépp mi ngi takku ci na jàmba sellale ak na jàmba rafetale tegginam wa safaxa te mu jéggal lahum ñeel leen taw tawbati ci tuub ga xan kabairi sayyaati walis way màggi bàkkaar ya bokk na ci pas-pasu lislaam ab julit bu jàddee def bàkkaar lu mu rëy rëy na ko tuub rek bu tuubee rek yàlla baal ko ko wa xafara te mu jéggal lahum ñeel leen asaxaira bàkkaar yu ndaw ya bijtinaa bi kabairi ci teen bàkkaar yu màgg ya ba tey suñu borom ba wax ci alxuraan ne bu yu màgg yi leen di jéggal bakkaar yu ndaw yi donte sax tuubu leen ko hmm. wa in tajtanibu kabaira ma tunhawna anhu nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilkum madkhalan karima wa jaxala te def moom yàlla man ka nga xam ne lam yatub tuubut dina kabair ci bakkaar bi aji mujj ila mashiatihi jëm ci coobareem ja koo xam nag moom gëm na yàlla waaye dafa sàggan ba faatu faatuwaale bakkaar yu mag nga ko kooku dañ koy bàyyi yàlla rek yàlla bari na yërmaane bu ko neexee mu jékki-jékki jéggal ko ñàkkam ko ñàkk na tuub du ca dara te bu ko tuuboon moom ñu doog ci ne jéggal nañ ko ko waaye da ko tuubugoon ba faatuwaale ko nag ko coobare yàlla yàlla mu jéggal ko bu neexee itam mu fayantoo ci moom kem la mu tooñoon ndax benn bàkkaar rek mooy bi nga xam kenn du ko jéggale lu may ci ak tuub ci des yëpp nag mënees naa jékki-jékki jéggale ko te kooku tuubu ko moom lay bëgg a na inna allaha naka yàlla laa yaxfiru du jéggale an yushraka bu dee fi bokkaale bii ak moom wa yaxfir dana jéggale maa duuna daalika lu dul loolee li man ñeel ka nga xam ne incha dina ko sopp lu bakkaar rëy rëy te du bokkaaleel yàlla rek yàlla mën na ko jéggale doonte kooku tuubu ko sax jékki-jékki rek jéggale ko ko waaye bokkaale yàlla nag moom faaw kooku koy tuub walbati ko wéetal ko dindi bokkaale ko moom set nag yàlla doo koo nangul ak tuubam wa man xaaqabahu koo xam ne mbugal na ko binaari ci sawaraam wa axrajahu mu génne ko min ha ca bi imaan yi ci sababu gëmam fa adxalahu te mu dugal ko bii ci gëm nga ajjana jannatahu ci ajjanaam ja nee koo xam ne daa tooñ gannaaw bu mu gëmee mooy dafa def bàkkaar ba mu tax ko dem sawara itam dégam xasoon na wéetal yàlla rek moom du sax sawara yi wéy lañ ko lam tooñam suñ fóotee moom seet rek daal di koy génne ca sawara wa ndax gëm-gëm-gëmam mooy tax du ci sax mu ko di wéy wa man yaamal ku jëf misqaala darratin kem aw sangleen xayran ci aw yiw yaraxaw mu gis ko da koy dëgëral li weesu léegi mooy jëfi yaram sax loo ci def tamuy lu baax lu mu tuut tuut daañu la ko fay daawante ne kon tawxiid bi nga xam ne mooy wéetal yàlla te moo gën a rëy jëfi cër nga tax kon ko xës gëm moom du sax mukk ci sawara wéy wa yaxruju na génn min haa ci sawara wa bi shafaaxati nabi ci ramu yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam man ka nga xam ne shafa ramb na lëxoo ñeel ko min ahli kabaayir ci ñuñ bàkkaar yi màgg yi min ummati yi ci xeetam wi ba tey nee na xeetu yonante bi ko ci xam ne jàgg na yoon maanaam mooy na ba mu tax koo dem sawara itam bu ko yonante bi tinoo rek yàlla tin ko bu ko ñenn ñu baax ñu tinoo sax ñi ki yonante ci des mbaa ñu baax ñu des sax ba tey bokk na ci li tax yàlla tin koo ga wa anna allah war nanoo gëm ne naka yàlla subhanahu sorelal naa ko lépp li ëllul ci moom xadd xalaqa aljannata ajjana fa ahaddaha te mu xaroo ko xaroo mooy waajal ñu wax préparé daara xulóodin muy këru béel mooy sax di wéy li awliyaa yi ñeel ay xejjam wa akramahum te mu teral leen fiiha ci ajjana bi nazari ci xool ga ilaa waci yi jëm ci jëmmum ji alkarima ji aji te bokk na ci pasasu lislaam nga gëm ne ajjana am na sawara am na ajjana di këru teraanga goo xam ne yàllaa ko waajal lool lool ak xéewal di ko xaaroo di gëmoon tey topp te bu ci duggee na leen teralaat beneen teral bu gën a rëy booba mooy ñu xool jëmum ci tedd ji da leen ñu xool jëmum ci tedd ji sax moo gën a neex jëm bi àjjana ja wax yow àjjana jooju ëllëti mooy ja nga xam ne ahbata wàcc woon na min haa tukkee ca moom aadama aadama nabiyahoo kat yonanteem wa xalifatahoo tey wuutaatam ila ardihi jëm ci suufam si bi maa ci la nga xam ne sabaqa jiitu woon na fii saabiq ilmihi ci aji jiituy xamam nga àjjana ji mu lay tudd nee na ca la yàlla njëkk a dëkkal aadama ak xawa may leen di leen lu leen neex xewloo leen ci àjjana ba mu des garab gee bu leen ko jege bañ ko jegee nag bu daal leen di wàcce ci suuf ndax mooy nañ ko waruñu ko woon a def waaye loolu bu defee ne yàlla bam bam naa leen bu leen lekk ci garab gi daa xamutoon ne daañu ci lekk ah kay xamoon na ne danañ ca lekk te buñ ci lekkee la ca topp mooy mu wàcce leen ci suuf mooy yàlla bokkut ak mbindeef mën naa am nga ne gone gi tëddal ci lal bii fekk dangaa defee du ci tuur ndox waaye boo ko xamoon doo yàlla nag moom mbir mu nekk fa mu tàmbalee fa mu yem lépp lay xam lépp lay teewandoo fi moom ba mu leen di wax naa bu ñu lekk ci garab gi tam xamal nañ daan ci lekk te bu ci lekkee wàcc leen ci suuf moo cay topp wa xalaqate mu bind annaara sawara fa axaddahaa te mu xaroo ko daara xulóot muy këru béel li man ñel ka nga xam ne kafara wetti na bii ci moom wa alxadate mu jeng fi aayaati ci ay kiimtaanam wa kutubihi ak i wa rusulihi ak yonanteem wa jaalahum te mu def leen mahjubina julli ñu yir yir moy ay moy ñu laq ñu ñu laq am yati ci ci gisam nga ni yalla sakke aja mi keru te daanga xéewal la sakke sawara mi keru tis Lol lol gu kenn mënta misaal mu di ko waajalal ñako ko won na nga wuñoo gëm yonante bi ak téré ñu wacce ci ñoom ak i tanam te sax buñ duggé sawara dana leen tek benen tis bu gëna metti sawara wate moy xañ gu mu leen di xañ ñu gis jëmmam ji wax ne ne ñàkk gaa gis jëmmi yàlla ja mooy gën a metti ci waa sawara jëmmi sawara wa ci boppam wa an na laaha war na noo gëm ne naka yàlla tabaraka barkeel na wa taala te mu kawe yey jiw dana dikk yowmal xiyaamat ci bis penc ba wala malaku ak malaaka ya safan safan mbir mu ñuy sàppe ci gannaaw sàppe li ardil umami ngir gaaral xeet ya wa xisaabiha ak seen xisaab wa xuqoobatiha ak seen bugal ak seen yool bis pencé sun borom tew dem mënta nak tew fune fune ma nga fa ba bo nga ni lepp nga fa mom malaka yi tew def ay sappé ñu wër nit ñi wet ku nek kenn mënta jaar fenn su ko defé xéet wu nek ak kenn ku ne ci xéet wa ñu sét sey mbir sét la nga defoon ci aw yiw ñu mi ngi ni sét la nga defoon ci safaan ba ñu mi ngi ni ku yallo tuyaaba ñu fay tuyaaba ku yallo bugal ñu teg bugal bu fekkee amut yermande yalla wajaa rabbuka wal malaku safan safa jooju ngay jàng ci suuratul fajr wa tuudaxu def na tëral almawaasiinu koo xam ne diis na mawaasiinu woo ay balaas yi yóom fa ulaayka ñooñee xum ñoom almuflixoona bokk na ci yi peese gi ñuy peese jëfi jaam ñi nga xam ne balaas yi ñu koy peese day xereñ ba nga xam ne fekk barket li muy tuuti tuuti bu ko bee ëppee morom ma faaw mu feeñ koo xam nag jëf yiwam moo wat mu daal di texe koo xam ne jëf safaanam moo wat nag bu ko yàlla baaxewut yërmande mu daal di ñàkk a texe wayu taw na def na leen jox saxaa'ifahum seen téere jëf bi ahmaalihim ci kem seeni jëf fa man koo xam ne ootiya joxeef ne ko kitaabahoo téeréem ba bi yaminihi ci ndeyjooram fa soo fa yu xaasabu xalsan neef koo xisaab xisaaban xisaab yasiran ji aji yomb wa man ootiye koo xam ne joxeef na ko kitaabahu téeréem ba wara al zahrihi ca gannaawam li gannaaw ba ulaayka ñooñee yes law na dañu jaaru sairan sawara bokk na ci tiiti bis penc jot gi ñu jot kayitu jëf yi mooy kenn ku ne nga jot sa kayitu jëf foo mas jaar dana ca nekk rey gum sax dana ca te ñëpp mën a jàng te kenn ku ne na muy jote aw kayitam ca lay xame rek boppam koo xam jafe nga ci wetu ndeyjoor loxol ndeyjoor na nga xam ne kon sa mbir lu yomb lay doon bu ñuy seet sa mbir seet bu yomb lay doon bokk nga ci ñi taxee koo xam ne nag moom téeréem da koy ñëwale ci wetu càmmoñ nag nga xam ne kon moom daal nay bokk ci ña war a dem ca safaan ba bu fekkee ne yërmande yàlla dabu ko wa anna siraata war nañu gëm ne nag a siraat xaqun dëgg la yejoo suufa dana ko jéggi alxibaadu jaam ña bi qadri amalihim ci kem seen jëf ci kem seeni jëf fanaajoona way mucc ña mutafaawitoona way rawante lañu fii di najaat ci gaawu mucc ga xale ci kaw siraat min naari jahannama ci sawaraw jahannam wa qawmun aw ni sax aw baqathum alag na leen fii haa ca sawara wa seeni jëf bokk na ci tiiti bis yu day waar yi jéggi siraat siraat aw yoon la woo xam ne fu waay mën di jëm muy àjjana muy sawara ca ngay jaar jàll te kenn ku ne na sa gëm ak sa jëf toll woon noonu nga cay gaawe am nañu ciy gaaw lool mel ni melxat am nañu cay yeex lool ba mel ne kuy raam mbaa kuñ wat xam day yeex lool lool daal ñu mu wutee doy na waar te loolu sax mooy ñu nar mucc am na ci ñoo xam ne moom seeni jëf yu ñaaw de tax sax dañuy daanu far ci sawara woowee nga xam ne moom la siraab tiim ko defee far nekk seen kër benn yoon duñ jot a jàll wal imaan war na itam gëm bi xawdi rasulillahi ci déggub yonante yàlla ba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tariduhu dana ko root ummatuhu xeetam wa laa yadma u du mar man ka nga xam ne shariba naan na minhu ci moom bokk na ci pas-pasul islaam am na xéewalu naanu teraang goo xam ne yàllaa ko xéewali yonante bi xeetam wi ñëw di ca naan si ku ci xas naan doo marati mukk mukk waaye nag wayu daadu def na dàkku dàkku mooy dàq rek xam walis déeg boobule man koo xam ne baddala weccee woon na diine muy kéefër wa xayyara te mu soppi woon sunn muy bidaa lay taxa naan je dég boobee kat mooy yaar gëm ba noppi sax ci sunna maanaam gëm ba noppi sax ci li yonante bi andi ne aw leen ci waaye koo xam daa bàyyi woon gëm jël kéefër mbaam bàyyi woon sunna topp bidaa bu dikkee bëgg naan dañ koy dàq mooy di nangu mu jege naan googee wa anal iman war nañoo fas ni naka gëm kat xawlun mooy wax bil lisaani ci làmmiñ wa ixlaasun akuk sellal bil qalbi ci xol wa xamalun akuk jëfe bil jawaarihi ci cër ya ba tey nee war na noo jàpp bu baax ne gëm kat balaa mat day boole yett dañ koy fas ci xol bi seere ko ci làmmiñ wi jëfe ko ci cër yi yett yi moom boo ko boolee te gëm mat na sëkk yasiidu dana dolliku moom gëm bi siyaadatil amaali ci dolliku jëf ya wa yanqusu te muy wàññiku bi naqsiha ci wàññiku jëf ya fa kon day dana nekk fiiha ci jëf ya an naqsu wàññiku ga wa biha te nekk na ci ñoom jëf ya itam as siyaadatu dolliku ga dañoo wute ci ndax gëm dana yokkoo ko wàññikoom déet waaye wax ji gën a mooy waaw gëm mën naa yokk mën naa wàññiku ci kaw rek borom gëm ga namuy farlo ak namuy sagane bu dee farlu jëfum di yokko ka sell gëmum gën di bu dee sàggan rawante na muy moye ka jàdd gëm nga gën di wàññiku xëy na sax mu dem far ba xol ba lëndëm mu patuus benn yoon nga xam ne kon boo seetloo ni taalif ka di waxe ëmb na yent mooy bayaanu كمال الإيمان بالإقرار والنطق وعمل الجوارح لول موي بن بي نيارال بي موي قبول الإيمان الزيادة والنقصة نيتال بي موي التصريح بأن عمل الجوارح شرط لكمال الإيمان نيانتال بي موي بيان أن صحة الأعمال والأقوال والنيات بموافقة شرحه صلى الله عليه وآله وسلم wala yakmalu du mat xawlul imaan waxu gëm nga illa bin xamalin day mu ànd ak jëfe ga nee na gëm bu fekkee danga ko seere ci sa làmmeñ fekk nga fas ko ci xol loolu baax na loolu waaye balaa mat dangaa jëf ci say boole ci maanaam lañ la digal nga di ko def lañ la aaye nga di ko bàyyi loolaa koy tax a mat wala xawlum du caageen wax wa xamalul ak jëf illa bi niyet dari mu ànd ak yéene mooy sellal bu fekkee ne gëm gi nekk na ci xol bi seere nga ko ci làmmeñ wi yaa ngi jëfe lay tax yàlla nangu say jëf mooy nga sell mooy jëmum rek tax ngay def la ngay def wala xawlu bi caageen wax waxamalul ak jëf wa niyat ak yéene illa bi muwafaqati sunnati ndare mu ànd ak dëppoontik sunna ba tey kat nee na bu fekkee ni gëm nga yaa ngi koy wax yaa ngi koy jëfe te fekk la ngay jëfe dëppoonteeg li yonante bi andi waaye boo jekkee jekk fent loo xam ne bokkul ci yonante bi andi itam loo am am yéene ci sell du ko tax a baax kon man nga ne rek yaar mooy tax jëfu baax dëppoo teeg sunna mooy li yonent bi andi te kooku def ko ngir yàlla dong te yàlla bu tasee jëf te fekk ko gëmmoo faaw rek yàlla nangu ko incha allah. wa annahu ak naka lay mbir moo di laa yakfuru du weddi ahadun kenn bisam bin ci sababu bakkaar min ahlil xiblati ci ñooñ lislaam bokk na ci pas-pasu ahlu sunna mooy ku bokk ci waa lislaam def bàkkaar dong taxu koo génn ci lislaam taxu koo soppi ko bi yéefar daa am nag ay xalaatkat yoo xam ne ay jullit lañu sax waaye dañuy wax ne bàkkaar moom benn tuutiwu ci ku xas def bàkkaar rek daal nay yàq lam jëfoon te daal nay soppi ko bi yéefar alxawaarij ab kuréel lañ ñooy wax loolu am na ñu ñu woy almuutasilatu ñoom ab kuréel lañ ba tey ñu wax naa bàkkaar bu mag daal moom mooy yàq jëf te xoos def bakkaar bu mag itam da nekk diggante gëm ak weddi ma nekkoon nekkoo jullit nekkoo yëfar yàlla ci diggante bi waaye loolu ay xalaat la yoo xam ne ahlu sunna moom jàpp ñu ko dañoo jàpp ne bakkaar moom bakkaar dong la li mu xos na nekk ab jullit moom def bakkaar taxu ko génn ci lislaam teewu ko nekk ab jullit ba tey na rek te yaakaar njëgal ah yaa um way dund lañu inda rabbihim fa seen boroom yursaqoona def na leen wërsëgal bokk na ci pas islaam te moom alxuraan da ko àddul sax bu wér-wér mooy ñi dee ci jihaar mooy ñu doon yëkkati baatu yàlla ba faatu ca ña ngay dund fa seen boroom seen boroom di leen wërsëgal mooy wala taxsibanna alladina qutilu fi sabilillahi amwaatan bal ahyaun inda rabbihim yursaquuna nga xam ne kon loolu moom amul nattable wa arwaaxa ahli saxaadati ak naka ruuy ñooñ texe baaxiyatun aji des la naaimatun te aji xewu ilaa yow mi yóbbu xasoona ba bis ba def na leen dekkal wa arwaaxa ahli shaqaawati ruuy ñooñ texee it muxadabatun luñu mbugal la ilaa yow mi diini ba bis penc bokk na ci pas-pasu lislaam nga gëm ne ñi nga xam ne ñoo nar a texe buñ faatoo dañ jóg seen ruu di leen xéewal bu ko defee itam ñu jàkkaarloog fu ñu war a jëm ci àjjana seen xol di ci sedd ñu yàkkamti bis bee ci ñëw bu dee roy ña nar a texee ji nag moom dañ leen di météetal leen bëggal ba bis bee ci te loolu mooy dañuy jàkkaarloog seen kërug sawara xam ne ci lañ jëm du duñ ci mukk bis bee ci ñëw ñaan ñu nag moo xam ruuga ngay texee la bañ di ko xéewal mbaa ruugay texee di la bañ di ko météetal lu ci mën doon daal lam yëg moom ruuga ci métit ba xéewal dana agsi ci fañ suul waaje ca bàmmeel ba dana am nu jokkaloo ñoom ñaar ba loole agsi ca bàmmeel ba wa ànnal mu'miniin ak nag way gëm ña yuftanoona def na leen nattu way def na leen seetlu fi qubuurihim ci seeni bàmmeel wa yusaloona te dee fi laaj leen su boobaa nag yusabitu dana saxalal way dana dëgëral allahu yàlla allazina ña nga xam ne aamanu gëmoon nañu bil xawli ci wax ja ak saabiti ji aji sax fil xayaati dunia ci dundu àdduna ga wa fil aaxirat ak ci alaxira daa bëgg wax mbirum laajum bàmmeel wane ne bokk na ci pasasul islaam te yonante bi wax ko ak laaye bi itam des na ko ci delloo mooy ñi gëm yàlla buñ faatoo ba nekk ci bàmmeel am na yaari malaaka yu ñu laaj ka nekk ca bàmmeel ba dañ koy dic ne ko waaw man rabbuka ana ko doon sa borom wa ma diinuka lu doon sa diine wa man nabiyuka ana kan moo sa yonante bu dee gëm yàlla nag yàllaa koy dëgëral ba mu tontu ne rabbillahu wa diinil islaamu wa nabiyi muhammad daal di ne yàlla day mooy sama borom lislaam mooy sama diine muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mooy sama yonante bu ko defee ñu yaatal la ko bàmmeelam mu nekk ci xéewal xam ne gëm gëm gëmoon te gëm ko sax mooy tax yàlla dëgëral ko ba tontu la du ko réer daal di xam la muy tontu wax ko daal di mucc daal di am xéewal bu dee yéefar ba nag moom ni ko yonante bi waxee ci addis ba dana yéefar buñ ko dugalee ci bàmmeelam dañ koy dij di ko laaj naa ko kuy sa boroom lu doon sa diine lu doon sa ku doon sa yonante du tontu lu muy xawma rek laa adduri su boobaa daañu ko dóor yatu weñ woo xam ni daal doy na waar buñ ko tegoon doj yi doj yi dañuy ruy suba waat na ci yuuxu yuuxu yoo xam ne mboolem mbindaafoon yàlla yi daañu ko dégg ba mu des nit ak jinne nit ak jinne rek nit ak jinne rek ñoo dul dégg yuux ya nga xam ne moom lay yuuxu daa bëgg dañu wane ne gëm mboolum bàmmeel ak laajum bàmmeel bokk na ci pas-pasu lislaam gëm ne ku dugg ci bàmmeel des na ko laaj am na nag ñoo xam ne kenn du leen laaj mel ne koo xam daa faatu ci guddi àjjuma baa bëccëgu àjjuma baa bu mu tawatee mu jàng ci xul huwallaahu ahad ci biir tawat ja yooyu kenn du leen laaj ci bàmmeel ak ku mokkal jaawartu mbaa kuñ suulaale jaawartu wa anna xalal xibaari ak naka nekk na ci jaam ña xafasatan way wattu bu di ay malaaka yaktubuuna nañ danañu bind amaalahum seeni jëf wala yasqutu te du rot shay'un dara min zalika ci loolee xan xilmi rabbihim walis xamuk seen boroom bokk na ci pas-pasu lislaam te sax alxuraan dana ko addu waxal na ko bu baax mooy jaami yàlla yi kenn ku ci nekk am nay malaaka yu la yàlla booleel yoo xam ne ñoo lay sàmm di bind li nga xam ne moom ngay def ci lu baax wala ngay def ci safaan ba am na malaaka mu féete ndeyjoor mooy bind jëf yu baax yi am na malaaka muy féete càmmooñ mooy bind jëf yu safaan yi loolu nag mooy jàngal Quraan wa inna aleykum la xaafidina kiraaman kaatibiina yaalamuuna maa tafaluuna jooju lu wor la wa tax bok na ci li wara gëm te japp ko mu ne nag ne du fa malaaka yi toogutoon di bind la jaam bay def yalla da ko lu xam aka yalla mom dara du ko recc waye nak jaam bi mu baye xel ne amna ñaari malaka yu and ak mom di bind limi muy jëf te dara leen recc na tax bu jaccu bu baax a baax na tax mu moytu bu baax baax waaye dara du ko recc ñaari malaka yi teew fa di xol ak bind ak ñàkk faa teew mo rek wa na malakal mawti ak naka malaakam dee yàq bi du dana ngëpp al arwaax ruuya bi it ngi rabbi yi ci ndigalal boroomam benn pas-pas ngoog bokk na ci pas-pasu lislaam gëm ne am na malaaka moo xam ne moom la yàlla féetale dee nga xam ne mooy ngëpp ruu yi moo xam doomi aadama yee moo xam leneen lu bokk doomi aadama am na malaaka bu ñuy wax Azraïl nee nañu moo féetewoo ngëpp ruu yi ci kaw ndigalul yàlla wa anna xayral quroni ak naka ngeen ji maas ya alqarnu mooy maas ga allazina ga nga xam ne raaw gisoon nañu rasulallah yonante yàlla ba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa amanu gëm bii ci moom tumma allazina topp ña nga xam ne yaloonahum danañu sës ci ñoom tumma allazina topp ña nga xam ne yaloonahum danañu sës ci ñoom ñi gëm ci nit ñi mooy ñi gisoon yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te gëm ko bu jàllee ña sus ci ñoom buñ jàllee ña ci susaat su ko defee nag lu ëpp na gën di yàgg nit ñi gën di yemaay rek nag ndax xam nga dara bu yeesee ñi ko fekk dañ koy fonk te gëm ko ba jariñ ca bu baax a baax waaye loolu day wàññiku ndax boo ko dee seet ñooñu seeni doom buñ dikkee duñ mel ne ñoom sët yi itam buñ dikkee duñ mel ne duñ mel ne seeni baay sëtaat yi noonu buñ dikkee duñ mel ne seeni maam mu yee rek nga xam ne kon booy takk ci kaw àtte mbooloo mi daal moom lu gën a yéex a ñëw ci jamono rek gën a yées lu gën a jege nag mbaax ga mu yonante rek ay gaayam gën a baax waaye wàññi ci benn benn yi nag moom mën naa am kenn yéex a ñëw ci jamono ba noppi yàlla baaxee ko mu mel ne ñu njëkk ña loolu moom coobareem yàlla waaye nag bu dee ci mbooloo mi rek moom loolu yomb naa dégg ndax boo gisee ñu fekke woon sëriñ bu mag bi rek seen taalibe na meloon seeni doom laal nañ ci waaye aguñu ci ñoom boo dee seet sët yi bañ ñëwee laal nañ ci loolu waaye agguñ ci ñoom te loolu day wàññi ko mel na ne muy gën di yemaay rek ba bis penc wa afdala saxaabati ak naka ngën ji saxaaba ya alxulafaa moo di way wuutu ya arrachidoona ya di way jub almahdiyoona ya di ñu jubal abu bakarin moo di abu bakar suma omar topp omar suma usmaan topp usmaan suma aliyun topp aliyu radiya yal na doole Allah allahu yàlla xanum walis ñoom aji maxinam mboole seen nee na buñ ne yonante bi moo gën ci mboolem xeetam bi maanaam moo gën sax ci yàlla sàkk ñëpp kon buñ ne yonante bi moo gën mboolem li yàlla sàkk te it ña ko gisoon te gëm ko ñoo gën ñëpp ñoo ña ko gisoon te gëm ko am nañu ca ràññiku lool abou bakar bu yonante bi jàllee moo gën ci mboolem xeetam wi bu Aboubacar jàllee Omar topp ci bu Omar jàllee Ousmane topp ci bu Ousmane jàllee Ali topp ci bu ñeenti ñi jàllee nga teg ci juróom-benn ñi nga xam ne bu ñu ak ñeenti ñi ñooy fukki yi nga xam ne ñoom yonente bi waxal seen ajjana te ñu dund ci kaw suuf ñii ñeent lañ am juróom-benn ñoo xam ne boo ko boolee ñeenti ñi mooy nekk alxasharatu al mubasharatu bil janna juróom-benn yooyu ñoo gënaat ci xeer yi boo weesoo ñeenti ñi. وأن لا يذكر ورنا بدي فتود أحد كان من صحابة الرسول صحابة ينتبه إلا بأحسن ذكر درجة جنجارة في تكتود والإمساك أكتئي أولا من حما ولسنا الخامن شجر خيرون بينهم سير ديغانته نينا كت صحابة كن ورفو حتن يوم لميرك لرفت لباخ باخ لخيرون سير ديغانته أي بكان بكان دانو جا بلدوار يوم يدسو كنتني نيجا برنك نيجا ñoom ñëpp kenn ku nekk na defoon rek sa xalaat moo gën ba loolu jiyale leen waaye du woon dara waaye kenn nett ni daal mbir yooyu xewoon tey mbir yu doy doy waar ba tax mu naaw annahum ak naka ñoom axaqu naas yi ñooy gën jaayoo nit ñi an yul tamasa bu dee fi sàkku lahum ñel leen ahsanul maxaarij yi gën jaa rafeti taawil wa yu zanna te fi jortu bi ci ñoom ahsanul mazaahir gën jaa rafeti mbir mbir mooy ngir moo di seeni xalaat ci diine nee saxaaba yi daal yelloo nañ bu baax a baax fépp fuñ jaaran rek mu tawu ko tawu bu rafet jàpp ne moom ak bëgg àddina mbaa dara taxu leen woon a jàppante yi demee